booy sànq ba may ñëw booy xoolal booy sama avion moo ma andi gisoo ca baa ngi si avion moo ma andi nii si yoon bi mais daa manqué ndox. avion moo ma andi mais daa manqué ndox. ah yaa sëfër man maa apprenti bi pourtant tey enquête naa si heure. maa apprenti bi. mën naa la créé benn station sa foofu noonu. Hmm. pour gars yi ko sol nii essence. avion. waaw waaw. te planétaire yi jaar. dama ne boo defaroon géej nii man gisoon naa ko. avion bi am piscine avion bu doon jaar soogul noonu. am na piscine avion bi. mais xam nga ramadan. weeru koor tubaab bi su ngeen gisee mu ne ramadan daa am lu tax mm-hmm. en 1404 boobu maa ngi yóbbu sama papa muy jàngi quoi mm-hmm. en 1404 waaw waaw mm-hmm. maa ngi koy yóbbu muy jàng maanaam sama maam ki ñu ko maamee ah sama maam bu jigéen ko ki ñu ko maamee daa amoon jëkkëru tubaab sa waay fi muy xampee jabar ji fi muy xampee tàndarma bi rama la léegi bi muy xàmpee tàndarma bi bëñ di waddaale mu ne ko ramadan. Mm. fa la ramadan jóge. moo tax jigéen ñi ñuy buggee ramadan. man de man de lu ma jaaxal sama benn ma. Mm. ñun daal dafa bëgg làkk français français. mbiram ba am kii xam nga rek ba ñu may ko daal. Mm. waaw takk nañ ko ba jëkkëram bi waaw yaa ngi leen a xam. boobu mais day toog di làkk français sax. liir bi du ko toppandoo si biir da nga dégg rek ko yow sa liir bi moom lay toppandoo. mu ne ah par rapport noonu la mel. mun kii de xam naa muy prêter loxo waaye nag gëmul benn jour ñu war a ak sa liir bi ak sa liir bi waaw liir bi liir bi daal moo dem ba ba génn mu laajte docteur bi fii la docteur na fii Europe laa bëgg a dëgg la mun ko bu juddee dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la man noonu laa meloon defe naa yow la dëgg la affaire bi des ma samedi fii nii ana benn maire boo xam ne doon jënd fëgg a jaay ci saa si la wasiñ te yëgu ko dem fi waa ji ñëw di jàpp yére yi naan nii di ñëw si saako bi fa yàlla jàpp tànk xale bi ni ko ñiib fi mu jàppee tànk xale bi ni ko ñiib da xale bi ni ko yaay Fane Ndiaye moom a jóg. sama xarit bi la woon. Mamadou xam ne mm. Mamadou dëgg la lay wax man jom naa toog di wax lu nga xam ne du dëgg. Mm-hmm. rapport papa moom la ñu jàppoon parc àll sax. Ah, fan yi moom la tëjoon foofu noonu. xam nga rek ci néeg gone la dugal baax. dañ kaa jaawale gone yi. ndeysaan ndeysaan moom papa moom sant ñu jaawale jaawale ko. Ah, ah, dafa ndoróog gone quoi. waaw waaw daa ndoróog gone quoi sax. fekk dañoo ressemblé. dama daan te man bi rek ma laa dugal onze bi. dëgg la. loolu la ma demee. même man man sa boobu noonu. maanaam arbitre mooy bi nga demee bay dugal bal balaa muy egg si camp yi bi ma tàllalee loxo noonu. yaa ngi koy fàttaleel. ak poto bi noonu ba bara di ko plongé poto bi dafa si panel on dama tiit sax. comme man fàttaliku ma ko de. fàttaliku déedéet ah soo defee sa tool bi bu ko fàttalee. waaw ah, loolu la ma demee. waaw ah, loolu la ma demee pourtant man maa ngi doon seen sa tur bi nii sax. ah amoon naa oto boo xam ne oto bi ndox rek lay jël. si bi daa bisi piscine am kër lépp. merci. Ah, en 1440. ngay wax pàcc bi ko sax. Hmm. maanaam pàcc bi nga xam ne treize portes la. Hmm. mais bi pëne bi dama kaa war a sonn xam nga mooy pëne bi mais nekk si def mbéy loolu la mooy pëne bi war naa ko ba sonn. yéegoon naa si support mos nga mën support yow moom lu may def rek fekkee nga. lu ma tere xam nga waxul seere baaxul. noonu la ko demee waaw loolu la ko tax lu ma jaaxal man man kon ñu ma dégg ci boppam dama dël ñun nan war a mel. moom a jaaxal yéen de boo leen muumawu leen te doo am ay géwél am naa ne seen géwél moom dina dem ba leen seen kanam ngeen ba am nu ñu ko bët mais yem na ma de mm-hmm. woo naa Macky Sall sax après dem ci guddi mm-hmm. Macky Sall na ma après dina a dina mujj ñëw télésage ci kon bi quoi mm-hmm. koñ bi lay télésage si si boppam géej ñu ngor gi géej ñu ngor gi fàtt naa leen wax keroog fa la ci biir géej gi am na wifi non non daa dëkk ne waaw waaw waaw loolu la ma kii waxoon président Amérique bi président Amérique bi loolu la ma waxoon. xam nga plan bi foofu la ko jëlee woon. président Amérique nu mu tudd. waaw Alaaji Thiam la. wax nga dëgg. Alaaji Thiam la wax nga dëgg. wax nga dëgg Omar moo nekkoon secrétaire am koy jaawale. Omar la. xanaa gardien bi kon mooy Adama Faye. Ah, waaw waaw waaw xam nga rek. ñun moom depuis moom ci. Adama Faye maa nga jàngal sax. kañ yow. ah wax nga dëgg wax nga dëgg maa doon sa sa bi. suq bi yow la yow la yow la moom mooy ba koy tàngal dama daa beeg yaasa bi. moo gënoon li ma moo ma moo ma. moo nekk rek mais chaque jour ñoo ma loolu la ko métti man. gars yi ñoo la xeex. Hmm. dégg naa xoolal deux votes nga am mais garaaw su benn yoonee quatre ngay am. Hmm. booy soxal nga ne. loolu jaa amul deux votes nit ñi dañuy ñu seen karaté waaye seen extrait lañ doon déposé ñu ne loolu. donc comprendre deux votes eh, extrait nga wax. Euh, comprendre deux votes yi benn vote bu dee mooy euh, nan ko mën a waxee tax si wàllu. da ngaa dem. maa ma yóbbu France. waaw benn vote bi. Hmm. mooy mille mille fois par plus si gars moo tax après dafa mujj dem kii bi xanaa moom ba may ñëw sooy bët yi tamit avancer woon kër ga moom laa jëli woon nii. man da nga fàtte say o sooy bët kër ga moom. sama bët yi laa fàtte woon kër ga quoi. est ce kon tey xeet ngay naan. ah tey xeet da nga naan xeet. ah, ah peut être tamit de mën naa ñëw moom it. ndax samay baaraam rek a ñëw samay baaraam tànk moo tax ma dox seen i tànk yi dama kaa jox. xanaa xanaa xamoon ni ngeen waxee am na maam boo xam ne soo nee xaaral sa bëñ yi wat. maam boobu ko sama maam la. yow waxtu dafa dama yow ñoo bokk maam. yow ko ne ah si laa fenn di ba faaw. gisoo di ba man de sama kër bi. géer moo ñëwoon euh, Ibrahima Diop moo ñëwoon Sadio Deme ma aal ko waaw daa am benn. sa kër gi nga mu yóbbu. sa kër gi la demoon te yóbbu. waaw waaw da ko léewoon loolu après xam nga sama kër gi invité bi la caméra bu gën a am am nañu ne yëpp caméra yoo xam ne dañu koy topp fii di kër bés bi muy naax bi nga xam bés laaf boppam la moom mooy naaw su ma ko nee film kay film kay jël ko par séquence bi jël ko par par lépp. keroog mm-hmm. bu ma doon laa fi laa la ngaa amoon fa. xalaat nga toog planté sa lépp. waaye ni ñuy fii li ñu wax rek ñaata jot a. waaw fu ñu toog nii. Mm-hmm. instant bii ndox. Mm-hmm. ah baaduma nag. ñoo toog ñun nga toogal. ah. wóor na. ñun bu ñu bëggoon traversé. man hmm. kii tey de maa ngi hmm. nga dëgg am na benn course bu ñu doon def ngor. man ak benn jën. Hmm. gore lañ jógee ba ngor di féey mais si entrée ngor gi noonu non si entrée gore gi noonu la ñu di jëm ngor entrée ngor gi la la jigéen bi lap man maa yëg. sama gën la. yow may wax jën nga ni ma jigéen. Euh, xam nga rek dégg ma la quoi. c'est que jën bi jigéen la. waaw jën bi jigéen xam nga jën la tudd jën. que jën bi parce que jën bi na naa moom moo doon expliqué quoi. nee na jën jaay nee na jën jaay la tudd jën jaay. jën jaay xam nga jën jaay. jën jaay xam nga nag dama lu si jaar. Hmm. am na yeneen jën ci ndox rek lay mais jën bi dund suuf am na. gis naa ko. ah faral kay bi. gars yi wax dëgg rek. jën buy dund suuf. waaw loolu gis naa jën yooyu ñoo gën a ñax yi nekk jën buy naaw sax. day naaw comme avion. bu ñuy wax avion séeréer. su na naa toll xaar yàlla kooku toll ba kaay ma wax toll di ko sànni nii may capté ci omelette. yéen a ngi mais am na yu doon wat rek ñu koy yónnee day yaabi ndax am na yu ma téye. kon wasala. nen bi moo raw kii bi benn benn bu dalee day bon fan lay def. waaw man xam naa leen. waaw waaw kii. waaw waaw jaar fee daa am indi lay jaar. mais fii fi ñu toog nii. fi ñu toog nii bay dina màbb de. ñu ngi màbb de. li ngay xam na ba pare nii. maa yow li ñu wax. kon lépp moo dëgg la. daa am benn jaar yu ma may. kooku dama ko doxal tey mun na ma tey ma takk ko tey waaw yaa ma gën a xam tey ñu am doom tey doom bi faatu tey moo tax ma mer. loolu tax sama ngeen suñu kër fële deux cent cinquante étages la am da ngay yéeg ba sonn am na ñoo xam ne dañ doon yéeg wala def nañ fa un mois mënuñoo yéeg bañ yéegee dañoo faatu dee xam nga lu tax mënoon a yéegi hmm. kër googu ba tey maa ko doon jaari te dama ci def ndox mënoon def ci kër gi saret laa jël diggante kër gi fii nii mel ni fii ak France ak fii ak France hmm. deux secondes laa def ci yoon deux secondes ci yoon ah. ok yéen nag yéen booy yéen